dal leen ak jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a di laal jàmm ci ay information lu jëm ci teer bi ak it ñi nga xamante ne war nañ ko dal di jël loole la ca am moo di ab perturbation boo xamante ni am na ci trafic bi ñoom ñoo ñëwee di waa TER ñoom dal di nay def benn communiqué bu nga xam xamante ni xam xamle na ne lii di situation bu dëkk bi waral na lii di teer bi tey ci ñu daal di koy arrêté. fii ak li nga xamante ne moo di situation bi di réglé wu ngir ñu mën a daal di wet bàyyi nit ñi. ñu mën daal duggaat ci li nga xamante ne moo di lee di wàllum TR bi ndaxte ñoom ca communiqué ba na ni ñoom ñu ngi ko entraîné de di di euh, seen train yi la situation de votre train est actuellement perturbée raison d'acte de malveillance loole ay perturbation yoo xamante ni am na ci train yi waral ba li nga xamante ni moo di wàllum dem bi ak dikk bi ci train yi bu boobaa ñoom nee na seen équipe yi ñu ngi mobiliser wu ci ñi nga xamante ni ñoo ci population yi loole ñoom ñooñu di ñi xam te ñoo di waa TER ñoo ko dal di xaatim mel ni kon lii di perturbation yooyu xëj na ñu rele ko ñoom ci waxtu yi nga xam te ni moo di ñëw waaye la ci am moo di yenn ci ay barab mi ngi am ñoo xam te ni ña ngi fay jéem di taal ak manifesté wu waaye daal li nga te moo di bi ñoom ñoo ñëwee loolee lañ daal di xamleegun leneen ba tey jii moo di lii di internet jamono jii. ñu daal di koy couper ci yenn wala restreindre ko maanaam daal wàññi li nga xam te moo di ak dooleem ña ko def moo di kii di ministre de la communication ci ak communiqué boo nga xamante ni moom mi xaatim na ko di ca leeral li nga xam xamante ni moo waral ñoom ñu daal di arrêté li nga xamante ni moo di wàllum internet daal di koy restreindre ci réew mi di Sénégal. moo di ni ñoom ngir sàmmonte ak àq ak yelleefu doomu aadama yi xam te ni ci dëkk bi ak it ñi nga xam te ni ñoom participé woon ci manifestation yi aju lii di wàllum discours yooyu bañ leen a jege ndaxte ñoom dañ ne dañoo gis ci biir réseaux sociaux yi ay discours yoo xam te ni yu yoo xam te ni mën naa indi leneen ci ay fitna waral ñu daal di koy wàññi lii di degré li nga xam te moo di internet ci réew mi di Sénégal ngir li nga xam te moo di wàllum stabilité daal di mën a delloosi wéy leen di abonné équipe bi dina leen toppal information yi à temps réel